mu ne faslu nasab su xamee luy jasam dañ koy jasam mu mutarion gannaaw war nañ la yi koy nasam nag ñi dem ak yow ci yi koy jasam moo taxoon waa nu buntu bi bi awaamilul jasmi bila wala min taliban da jasma fil fi'li hakaza bilam walamma wajtim bi in wa man wa ma wa mahma ayun mata ayana ayna isma waxay suma anna waxarfun isma hmm. ka in wa baaqil adawaati asma hmm. fi'layni yaqtadiina hmm. shartun quddima yadlul jazaa'u wa jawaaban rusima wa maaliyayni wa maadiyayni aw mudaari'ayni tulbihima aw mutaxaalifayni mu ne dax na nga tegee jasman jasam fil fi'li ci fi'l bilaa ci laa taaliban mbirum nga daaji sàkk laa su tegtalee maana talabi te mooy nahyu wala duha soo àndeeg feel feel booba dañ koy jasam wana dara néew na nag jasmuha jasamam fi'l mutakallimin mu daare ma feel boo xam ne kuy wax ak moom muy ànd ak laa ak naa yéen ñii ko jasam kooku bëriwut la nga toogee bu ma def ma ngay bare mu jeex tuddee sa bopp doo ko defee wax dangay bare mu mujj yaa soxla moo ci bëriwul léegi la aarifan rabrafan xuuran madamiaa muraddafatin ala aqaabi agwaari la aarifan bu ma de bu ma xam rabrafan mbooloom ay jongama xuuran ñu de woy rafet madamiaa seen dawaay doon ngeen mooy seeni bët muraddafatin ñu de ñu ñu eh, togg mooy gàcce ala aqaabi agwaari ci kaw yu teg mooy mootu leen buur yi ba leen fexe enrif mudarion la kii wax ak ko mu ngi ànd ak la annahiya li la wax ne bariwut dañ ko defal nunu tawkiid moo ta ñu binaa ko ci fata ma xarajna min dimisqa fala naot daal bi day ko aasaf laha abadan ma dama fiha al juradimu isa ma xarajna bu ñu min dimisqa tukkee dimisqa hmm. fala nahoot buñ dellooti de hmm. laa ñaal dimisqa abadan faw buñ fa demati de hmm. maadaama bir sax na fii aa ca dimisqa aljura de lekk kat ba lekk kat bu mag ba buñ fa demati <laughs> nahoot nahootu mu daari woon la moo xam ne kuy wax ak ko moom waaye teewul mu ngi ànd ak nahiya loolu loolu bariwul seetlu ko baax a baax naam in kaana bu nekkee lil mafooli jaasa bi kasratin fi'lu bi suñ ko binaayee ci luñ réeree day kon kii wax man na koo xam jësam koog laa mais laa uxraj bu génnee ma ma ne buñ ma génnee laa udraj bu dóoreef ma loolu waxuñu ko li anal man hiya ndax ki ñuy tere xeeru mu tëgg doom waa tere bi kii wax moomu ko keneen na moom waaw keneen na moom daana nga tegee hmm. jasman jasam fil hmm. fi'li ci fi'l hmm. bi laamin ci la taliban birum nga daa jisaab ko laam bu tegtalee talab te muy amru wala du'a soo ko defee ci fi'l fi'l ba dañ koy jasam maksuratan laam bi dañ koy kasara waaye joo sukkunuha ba'da laa'i wal faa su fekkee dafa topp waa wala faa nag man koo sukkoon li yaktub na bind wala wal yaktub na bind wala fal yaktub na bind waqatu omalu def na ko liggéeyloo mm. mahdufatan de lu ñu asal mm. laamul amri léeg nga fekk ñu asal ko du ba ne aati mm. te du tey jasam gam daan def ba léegi mu ngi wéy di ko def yëkkun rek nga asal li yëkkun bi ni ki qul li ibadiya alladina amanu waxal ma ñi gëm ne leen yuqimu salaata nañ di taxawal julli li yuqimu laamul amri bi dikkut waaye teewal yuqimu ñu ngi ko jasam ba léegi qultu wax naa li bawaabin ñaala bëkk néeg mm. boo xam ne day nekk na fa moom daaru ak këram mm. bëkk néegam laa ko ne tiisan joxeel digal mm. li tiisan laamul amri bi dañ ko aasaf waaye tiisanu ñu ngi ko jasam ba léegi fa yi nii man xam waxaa borom laa ko jaaroo ak dëkkandoo wana dara tuuti na jasmuwaa jasamam fi ala muxaatabin mu daare ma moo xam ne ku ñooy waxee ko moom nga fekk mu ànd ak laamul amri kooku bëriwul ndax tëgg la mas la ñuy doyloo mm. pour nga xam li taqum na nga jóg mm. da ngaa doyloo xum rek mm. li takkutum na nga bind da ngaa doyloo uktub rek loolu moo tax bëriwul waaye teewul danay am ni ki li ñuy jàng ci alquran ca ña koy jàng fa bi dalika fal tafraxoo ca ña koy jàng tafraxoo mu daarenal mu xaatabi mu ngi ànd ak laamul amri jasam ko léeg loolu loolu bëriwul way joosu jasmuha fi'lal mutakallimi man naay jësam mu daal moo xam ne kuy wax ak moom mooy xoomoo jóg leen fas usalli bikum ma it ma jiite leen naa leen naa def nangam lañ ko de waxee usalli mu daal la kii wax ko moom mu ngi ànd ak amri ñu ngi ko jësam ak wal naxmil xataayakum nañ ñeenu seeni bàkkaar naxmilu mu daal mu tëkkalim la dafa ànd ak lamul amri ñu ngi ko jësam moo tax ndax na nga tegee jasman a fil fi'l ci fi'l bila ci laa wala min ak laam mi nga daa ji amran moo xam lam bi day teg le amru aw nahyan wala gi di teg le nahyu kama marra ni ki mu wéyee ci misaali aw du'aan wala ñaan la sax ni ki rabbana la tuwaaxidana tuwaaxid ci déggee maana du'a bi maan de laa dañ ci déggee maana du'a maa la tuwaaxidana ak li alaynaa rabbuka laam bi dañ ci déggee maanaam du'a lu ànd ak yàqati nga niñ ko déggee hatta saa noonu na tegee feel ci jasam ci feel bi lam ci lam wala ma ni lam yëlit walam yuulat yëlitu yuulatu comme ci mën a doon ñaari feel la bu ànd lam comme ci mën doon jasam nañ ko ndeg àndam lam ñaari feel la yu lam ak wala ma yaalamillah yaalam fen la bu ànd ak jasam ko ndeg loolu wuxumaa ñoom ñaar muy lam ak lama xarfaani ñaari xaraf lañ li nafyil mudaari'i wa jasmihi wa qalbi maanaahu ak jàllar bi maanaam lil maadi jamono bi lam ak lama bu ñu ànd ak mudaari'i dañ koy dàq dañ koy jasam te dañoo soppi maanaam yi mu jëm ci réew yi waqatul xaa léeg-léeg wàcceer lam lam léeg-léeg fekk ñu dugal ko jumla te dañ koy sànni du liggéey dara lawlaa xawaarisu min duhlin wa usratihim yawma sulayfaa'i lam yabuuna bil jaari lawlaa xawaarisu bu du ay jàmbaar min suulin ñu bokk ci suul wa usratihim ak seen njaboot yawma sulayfaa'i kon lam yo lam yoofoona du ñu dikk wala duñ matal bil jaari dëkkandoo ko dëkkandoo yoofoona fi'lu bi ñu ko rafaayee noonu te mu ngi ànd ak lam lam lañ kontul wutub soob def na ko xaajale min majisoomi yi jëla mooy jasam daroo la ngir loru woy diggante lam ak peel bi mu war a jasam léeg-léeg ñu jaarale fa dara waaye loolu bu woy bu dagan ka an lam siwa ahlin min al wax si tuuhali la jiitu mooy faaxat maxaaniha xibaara rusuumuha woy woyoon ñëwoon na saa yëg ci gannaaw faaxat mujj na maxaaniha seeni wàccuwaay xibaaran de woy wéru suumuha seeni gerte ka daanaka mi lam toohal ñooña leesu ko si mm. waa ahlin eh, dara ñooñ mm. al wasi njaal mm. diggante lam ak toohal kim war a jasam si waa ahlin eh, al wasi moo fa jaar loolu wéy moo tax wéy fiwu dana wér in xitaama man fi yaa doggent ak lu ñu dàqam anil haali ci léegi loo xam ne wéy na ba jeex nga jëfandikoo ci lam loolu mën naa nekk nga ne lam yëkkun summa kaana xamu doon ne gi xam na dàq bi ca la wéy mm. la waaye jeex na léegi bokkatu mm. bi xilaaf bi lamaa lamaa nag lu wéeru léegi bokk rek amagul rek mm. way ñëw dana dagaan man dana dagaan xas bu man bii lamaa lamaa bu la neexee nga doyloo ko moom kenn fin bi mu war a jasam bañ a dikk nga ne xaarabtul madinata jege naa dëkk bi de waye si wala ma waaye duggaguma nag waye si waa su man bii lamaa dagaan xarabtul madina te jege naa dëkk wala ma waaye àggaguma ah wala ma àddo wala wala ma àttul ilayha bi xilaafi lam lam nag moom kenn du xasal meel bi mu war a jotam de ko doy la moom kenn ma ne ko man gis naa ko mu ne waa ma qawloo la nga dégg wéykat ba naan ihfad wadiataka allati stawdataha yawma al aasibi in wasalta wa in lami ihfad wattul wa diyaataka sa dénkaane allati bi nga xam ne ustoo diyaataha dénkeef na la ko bi ci bisu tàggaloo la ma la in wasalta boo wa in lam tasil ak boo jotewul yëpp baya xel ma la dénk baa ngi boo amul wa in lam tasil mu loolu waxoon na dagam ne fa doro sunu loolu wéy yii de ñoom dañ jasam moom ci mën a do benn fayal jasam ndax na nga tegee jasman jasam ci fayal ci fayal bila ci laa wala min ak laam taaliban biroom nga daa ji sàkku hakaza naka noonu na nga tegee jasam ci fayal bilam wala ma wajisim na nga jasamee bi in ni wa in tubdoo waman niki wa may yaamal wama niki wama ma yakun inda mri'in min xaliqatin walaw xaalaha taxfa ala nnaasi tu'lami wama yakun lu mën a nekk inda mri'in fa waay min xaliqatin ci jikko rek tu'lam def na ko xam walaw xaalaha donte foog na ko sax e taxfa muy nëbbu ala nnaasi mahma takun tu'lam waye moom mahma murakkabatun min ma asartiya wa zaida maaham sarta ak maaham sayid hmm. moom lañ boole muy maama hmm. lii foog maa gi ñu ko haa hmm. lii maa bu jàkk muy mëh maa waqiila waxees na boobu di la alif haa waqiila waxees na murakkabatun min mëh wa ak ayu ni ki ayam maa ta doxo ak ayaana moom itam danay jasam ni ki ayaana nuumin ka taaman xayrana wa ida lam tadrik al amna minna lam tasal hadira boo mm. ci gannaaw ñëw na mm. ak ayyaana mm. moom itam dana jasam ayna kon ayna ana ana loo fi génne ayna ma takkoon yudrikkumul mawt ak idma wa innaka idma taati ma anta amirun biitul man yaw tamuru atiya wa haysuma ak haysuma moom itam dana jasam haysuma tastaqim yuqaddir laka allahu najahan bi gaabiril asmaani yëpp wéy na annee ak annee dana jësam xalilayya anna taatiyaani ya taatiya xam xayra ma yudrikuma la yuhawilu yewweena wa isma isma harfun haraf la ne isma kenn du ko tuddee ni simi sarta dañ harafu sarta la ka in ki in in kenn du ko tuddee simi sarta dañ harafu sarta la wa baaqil adawaati li def ci jumtukaay yi ay lisim yi des nag yëpp benn bu ne da nga naan li tamit sarta la xaal asayi fii mahma buy mahma xaj na wuute am na ci waaye li gën wér mooy lisim la nekkul ne xaraf la wattifaqan fil bawaqi yi des nag ñëpp dëppoo nañ ne ay lisim lañ waye imma benn xayru sarfin man nañoo bañ a doon saraf de niki man ak ma ak mahma duñ saraf wakkasa ayu du sarf ilaan udifat li daafin xanaa mu laal jëm ci saraf wa imma sarfu zamanin man na joon doon saraf tey sarfu zaman ni ki mata ak ayyaana aw makanin wala ñuy saraf te suroful makaan ni ki ayna ak anna ak haysuma adoo sarti yi jësal ñaari fen ni daal lañ demee bi daanaka amul ñaari wa hadihi al adawatu jumtukaay min ha nekk na ca hmm. maa lu xam ne layu jër defu ko leel hmm. am maa walis maa asaida hmm. xam ne ci yoo xam ne pour ñu jasam il faut dañuy ànd ak maa dégg nga ni maa haysu moom kenn du jasam ak id maa is moom kenn du jasam wamaa ak bu xam ne tum na wa def na tere maa fii joo xam ne ci yoo xam ne kenn du leen maa ni ki man kenn man maa si maa kenn du wax maamaa hmm. hmm. mahma kenn du wax hmm. yi kenn du leen boole wa annaa kenn du wax wa ma ak lu xam maa dana dagal fii ci moom wal baqi ayna kese wala aynama ayaana kese wala ayaanama wala mata rek wala matama wala ayu rek wala ayuma ñaan ne maam saya jasam wala in kese wala imma yi mu yi jasam way si mbir mun yaqta dina danañ sàkku ñoom yi ne la ko dalee ca si bëgg ñoom dañuy sàkku fi alay ni ñaari fen ñoom buñ demee bay jasam duñu doyloo ñaar benn fen ñaari fen la ñu am sartun sarta xuddima jiita lees na ko subaana ñaari fen la ba ñuy tuddee sarta mooy jiitu yàlloo dana ko topp aljasa mm. gannaaw sarta nag la jasa de dikk wutima mandargaales nag moom jasa mm. jawaabaat mm. ki ñuy tuddee jasaawu sarti mooy jawaabu sarti il faut day ñëw baada sarti ay yet ba wowal jasa fa in taqaddama ma yusbihu su fekkee dafa am lu jiitu luy niroog jawaab fa huwa dalilun alayhi la huwa dafay tegtale jawaab waaye du jawaab de ukrimuka danaa la teral intatini intasurni boo ma nemmeekoo ukrimuka intasurni loolu nga wax ukrimuka dañ cee xamee ne ukrimuka moo war a la jawaab bi waaye du de xilaafan lil koofiyiina wal mubarrat daay koofa yi ñoom nee nañ jawaab man la jiita yaqtadina danañu sàkku ñoom yi mm. fi en lay ni sartun sarta ku dima jiita lees na ko yelloo dana topp aljasa o wusima mandarga lees na ko jawaaban ñaari fin lii nag la ibnu malik di wax ne wa tul fii ma man ga leen a fekk de maa da yéeni ñuy ñaari maal jumtukaayu sarta yi ñaari fin li ñoo àndal mën nañoo doon ñaari fin li maat maal sarta ak ku ci ne maat la ni ki wa in ottum ote naa comme ci mën a doon àndal aw mudaari'ayni hmm. wala nga fekk leen yu hmm. ñaari mudaari'o hmm. ni ngi wa in ta'udu na'ud ta'udu ak na'ud ku ci nekk mudaari'o aw mutaxaalifayni wala ñu wuutee bi de maal bi de mudaari'o maadin fa mudaari'o subaana wuute bi ni muy demee sart nekk maal jawaab de mudaari'o mooy li bëri man kaana mooy sarta si kaana yuridu hatta laaxirati na zid jawaab bi mu daari moom la lii moom bëri na moom wax ko xalil waaye sax ta nekk mu daari moom jawaab di maal ko moom bëriwul man yaqum laylatal qadri yaqum mooy sax bi mu daari moom la imaanan waxtisaaban xufira di bi di maal loolu bëriwul ma taqaddama min zambi ak la ba wax ne iyasmahu ribatan wala ribatan taaru biha farahan anni wa ma samiho min salihin dafano bu ñu ribatan sikk anni jiman taaru jinaw farahan ngir dégg ay ci moom luñ dégg loo ma askane bañ jàg kontaan yàkkamti koo tasaare waaye ma samiho luñ dégg nag min waaye loo baax nuñ ma déggal di hmm. dafa dañ koy gas suuf de dañ koy suuf de xam nga ñaaw soxla mooy in yasmao hmm. mooy sarta bi hmm. mutaaria la taaro mi jawaab bi demaan seetlu bu baax a baax mu ne buñ déggee loo bon di yàkkam bi nañ koy na buñ dara bon dañ am jàmm waaw yasmaul xayra axfaw buñ déggee loo baax nëbbu ko wa in samiu sarran akaahu buñ déggee loo bon tasaare wa in lam yasmahu kasabu buñ déggu dara sositan kinaa gu foo moom xëy na ñu ko wa in lam yasmahu kasabu ñu ñëwee ñëpp ñoom waaw baax na ko ko tul bii maa tanga fekk ñaari fin li mudaari ayn maa da yéen ñuy maar ñaari maal aw mudaari ayni aw mutaxaalifayni daanaka boo ko jàngee amul